waral leen weer moom moom feebar la bu nga xam ne moom la ñuy wax xam nga coronavirus li ñuy wax zoonose la zoonose mooy feebar boo xam ne daanaka mala yi ak doomu aadama yi ñoo koy bokk donc euh, c'est tout à fait normal que koy gis ñu gis ko ci population bi ci ni couche yëpp mooy xale yi mag ñi jigéen ñi ak góor ñi donc loolu lu lu lu normal la euh, ñu war ko mën a gis aussi tam ci école yi mais day feebar bu nga xam ne nag daanaka xale dina ko am mais du ko daaneel du ko faagaagal ci mag la gën a ay

mais xale yi ñoom dañ dañuy infecté wu te dañ ci dañ ciy infecté wu infection infection boo xam ne dafay jéggi dayoo ba nga xam ne bu ñu delloo ci seen kër ñoom ñoo koy wàll seen papa yi seen yaay yi ak seen maam yi donc ñoom ñooy gën a lawal feebar bi te du feebar du leen daaneel loolu mooy problème bi. waaw mu li ñu mën a jël rek mooy la ñu taal mbaloon ci njëlbeen gi mooy méthode barrière yi saa nit ñi di gën a raxas seeni loxo.

entre xale yi nga xam ne dañuy jóge école ak mag ñi nga xam ne dañuy ne ñi nga xam ne même bu nekkul ay mag tam dañu am dañu dañ leen wax ne dañu dañu euh, dañu taare c'est-à-dire que ay yenn feebar yi lu mel ne ay diabète ay hypertension artérielle ay cancer ak yeneen feebar yi nga xam ne d'abord day néewal kattan doomu aadama bi ñooñu bu fekkee dañu am contact ak virus bi daanaka dañuy mën na leen ay jafe-jafe yoo xam ne day jafe day jafe faj couvre-feu bi moom xam nga virus bi daw day nekk loo xam day daw la ñuy wax ci nictémère bi yëpp lay daw maanaam ci 24 heures yëpp donc boo ko bëggee confiner ci benn heure day indi problème donc te boo xoolee peut-être si fi ñu waroon gën a insister du ci couvre-feu bi entre vingt heures ak 5 heures du matin mais tey teewul ni ñi ngi jaxasoo ci biir marché yi ñi ngi jaxasoo ci transport en commun yi ñi ngi jaxasoo ci biiro yi te loolu peut-être mënoon nañ xool nu ñuy def ba nga xam ne mënoon nañ ko endiguer ba du nit ñi bañ a nekk en contact trop par exemple ci transport yi par exemple ci marché ak yeneen yi da naa foofu moo ëppoon solo def couvre-feu vingt une heures cinq heures du matin. waaw mais loolu lu jaadul la parce que boo xoolee ci pays européens yu bari yu tijji woon dañu commencé naan est-ce que duñu tëjaat parce que buñ ko deful aussi tamit dañuy def la part des choses entre njàng mi économie bi ak bakkanu doomu aadama yi donc loolu tamit autorité politique moo jël décision bi. de façon li feebar di dox di ak ni muy def def de ci loolu la ñu war a mën a jëm bu ñu ko deful tamit def naa njariñ mooy njariñ boo fekkee. li ñu mën am daal mooy d'abord ñu école yi ñu jéem a xool nu ñuy confiner yi parce que xale yi confiner moi nous euh, ñu dina dina jouer ben rôle bu mag ci transmission bi parce que nous ñooy génn jangi dugg ci transport en commun yi jaxasoo si école yi dellusiwaat si kër yi indaale jàmm jàngoro bi donc lu ñu mën moi def arrêté école pour man.

xool ne vraiment jàkka yi muy église yi muy euh, cérémonie yi nga xamné ne dañ fay dajé ñu jëm xol état bi xol nu ñu koy jéem a mais lool aussi du ñëw rek imposer force def naa boo gisee mu échec bé passé dañ dafa laaj waxtan parce que nit ñi aussi tamit ils sont réfléchis ken bëgg leen euh, gënu leen bëgg seen bakkan mais je trouve que bu ñu waxé lo xamné xam ne na maanaam war nañ ko mëna a dégg te jëfé ko